jafandul su ma yeboo di la ñaanal iyo yaay xereeru dalaw piki piki no yaay ramatu da gis nañ fi récemment passé lamb ji nga xamante ni moom moo amoon le 4 avril euh, yaakaar naa mu nekkati une déception des sénégalais ci diggante ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène ak Lac de Guiers lamb bi nga xamante ni euh, victoire arbitrale la ko mujj daati gagné ana lan moo nekkoon sa gis-gis jour combat bi. combat la bu nga xam ne euh, ci live bi ñëpp dégg nañu ma ma ni c'est décevant parce que wax dëgg neex yàlla le sentiment le mieux partagé moo di ne déception am na ci askan bi yëpp moo xam amateur yi ñëwoon stade moo xam supporters yi ñëwoon stade moo xam ñi toogoon seen kër di seetaan ci télévision bi te tey bu fekkoon ni def nga micro ci dëkk bi ñëpp dinañ la wax ni am nañu gàcce ci combat boobu parce que ça te été un combat décevant amul lu ñu fay nettali je pense que làmb buñ koy wax ak qualité yi ma xam ci Eumeu Sène xam ko ci Lac de Guerre reporter seen premier combat reporter seen deuxième combat reporter seen troisième combat man je suis bien placé pour dire que c'est un combat nul à tous les niveaux ni ma yéege woon extasié wu ca premier combat ba ba ni lii mooy combat Moustapha Gueye ni lii mooy combat dañoo reporter ba lekk micro jour boobu on était tous contents dem nañu ba amateurs yi ku faral Lac de ak ku faral Eumeu Sène buggatuloo woon kenn am ndam jour boobu match nul bi ñëpp tàccu am nul ñëpp kontaan ñëpp tàccu la jour boobu la am deuxième combat bi ñu ñëw bëre fa lu neex Eumeu Sène daan ko on a trouvé rien à dire on les a félicités mais ci troisième confrontation bi pendant quarante minutes amul benn yoon bu ñu jàppante lamb bu amul song làmb bu amul jàppante làmb bu amul téye ngemb làmb bu amul caxabal làmb bu nga xamante ni nii Covid 19 respect distanciation sociale moo fa am. distanciation physique kenn laalul sa morom ci ñaari ponkal yu nga xam ne fay nañ leen plus de 60 millions nit ñëpp yàkkamti làmb ngeen taxaw di benn bennal ba mu jeex non loolu. Euh, ça n'honore pas Eumeu Sène ça n'honore pas Lac de Guiers parce que à vaincre sans péril on triomphe sans sans gloire tey nit daanu na mel ni moo daan ñu teeru la tatagal la ndax da nga def jom fulla ak fayda ci combat joxe ba jeex tàkk ñu daan la nga ñëw say supporter supporter la ta tatagal la mais dem ba askan bi jéppi la loolu la ñu waroon daw parce que am na lu ñu wax am na lu ñu xas-xasloo ba ñëpp taxaw di leen déglu bëreewuñu bëre amu fa je pense que tey Eumeu seen qualité yi ma ko xamee ëmma à lutter contre nature man des fois sax damay toog may waxtaan suma gars yi man leen j'ai l'impression que Eumeu seen mais moo ñëw mais mbër mi ñëwul parce que mbër Eumeu seen mbër la ama seen ndaanaan la Eumeu seen combat yi gën a métti gën a neex ci làmb ji moo ko bëre Eumeu boo ko nàccalee keroog la la gën a mën a song gaynde dëgg la ndaanaan dëgg la karaw boppam ba ci wewu tànkam léppay bëre mais keroog dafa taxaw bërewul dégg naa bi làmb ji tasee mu ni warul leen ma woon mu wax ko ay ay ay ay ay encadrement parce que peut-être li mu jóge la il a perdu le titre de roi des arènes face à Eumeu Sène parce que moom face à Modou te moom moo jël risque dem te pourtant mënoon na taxaw xaar Eumeu parce que euh, xaar Modou parce que Modou moo soxla woon titre roi des arènes mais keroog dafa joxe boppam ba la ko ca dal dal ko ci bii aussi xëy na waa Pikine ni ko bul jël initiative taxawal déglu ko bu juumee nga daan ko mais la dëgër du koy juum la dëgër day calculer ba calculer fu dara nekkul c' est le plus grand mathématicien de l'arène c' est le plus grand tacticien de l'arène du jël risque bu nga xam ne da koy jël di daanu mais tey ci làmb ji buñ ko seetaanee euh, ci réseaux sociaux yi da ngay gis que ni les sénégalais ñoom euh, ki ñuy gën a attaqué Lac de Guiers lay doon parce que dafa mel ni foot bi yëpp ci kawam lañ koy euh, teg ndax à chaque fois moom ay bëreem moom mooy ñëw rek pour samp nul est-ce que loolu lu yalu maanaa la. non non ci combat bi sax lak lak lak lak moo gën a moo gën a jël initiative bu ñu waxantee dëgg rek moom moo gën a jël initiative Eumeu était sur la défensive fermé fermé làmb ji parce que Eumeu dafa jàpp ni lag moo war a ñëw jël si mooy xale moom mooy jël revanche parce que Eumeu Sène a ko daanu beneen bi ci des Eumeu dégg na lu mu déggul muy titre roi des arènes et c'était l'occasion pour lui mu wane boppam pour que ku daan ci Modou ak Ama Baldé mu sampal la pour dem déglu titre roi des arènes donc tey luy luy risque ci combat bi rek jàpp naa ni moom Lac moo ko waroon jël mais Lac de man dama topp carrière am xam ay qualité am c'est un garçon très dangereux c'est un très bon combattant c'est un très bon lutteur te la CLAFou 2006 ku ko seetaan gis ni mu faxasee Zos gis ni mu def euh, tafatin gis mu daan ay ay ay ñoom euh, le caïman de Thiaroye mais non mais Lac de Guiers c'est un c'est un très bon lutteur c'est un très bon athlète boo ko songee mu daan la bu la songee daan la loolu la daan bëree ba ñu tuddee ko le jato de la banlieue yor loxo bu neex ba ñu tuddee ko le puncher mais dafa dem ba egg ci levelu VIP commencer maintenant di calculer lu bëri loolu moo tax nit ñi collé ko étiquette boobu ni c'est un lutteur défensif c'est un lutteur ay nul non la non ay victoire ëpp ci carrière am victoire yi mu am moo ëpp nul yi mu am bariwul bu ñuy wax aussi defe naa ne benn niil xaw ma ñaari niil la am bu nit ñi jaawale peut-être moo fi bëri combat yu gën yàgg xëy na Euh, parce que day dem ba constant bi ba mu jeex contre Boy Niang def na ko contre euh, Eumeu Sène def na ko am na beneen combat aussi bu nga xam ne yàggoon na trop donc loolu xëy na lañ koy reprocher te loolu à un certain moment de sa carrière la ko commencé mais ci combat bi vraiment moom moo waroon a indi safara moo waroon a indi explosivité moom moo waroon a dem songu jëli Eumeu Sène malheureusement il l'a pas fait et je pense que le grand perdant ci combat bi man jàpp naa ne Lac de la c'est lui le grand perdant parce que ndam fa mu ko doon yóbbu ak bunt yi mu ko doon ubbil néew ma amul ndam parce que jox nañ ko ndam mais ndam bi may wax ndam man mooy toog sa dëndu adversaire daan ko mais waxuma ndam au point parce que même foofu euh, voilà l'arbitrage me laisse un peu un peu sceptique parce que man je di que ci arbitrage bi benn moment maa ngi wax ci biir reportage bi ma ne il y une part de psychologie dans l'arbitrage Euh, bi ma xoolee mbëri xam ni fa ñu jëm ba xam fa ñu jëm dama ne arbitre bi bu ma dee moom dinaa gérer combat bi de manière à ce que du ma teel a jox avertissement kenn ci ñoom parce que koo ci jox avertissement rek keneen ki day téye boppam parce que temps bi cons nañ ko ba muy waaj a jeex mais foofu psychologie la arbitre bi waroon dawal bàyyi leen ñu ñafe ba kenn daan moroomam mais bon comme sëkkatal na ëmma ëmma aussi def recul stratégique waa ji jox ko avertissement mais Lac consciencieusement day xam ne bu combat bi jeexee mooy am victoire mu gérer ko ñu jox ko victoire am nee na victoire nu ko amee baax na mais cette victoire la euh, du du du victoire bu nga xamante ne nii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg euh, moom lañ doon xaar ci Lac de Guiers ci digganteem ak Eumeu mm-hmm. ñu daal di jeexalee làmb ak dernière question bi mu nekk affiche boo xamante ni yaakaar naa ni euh, waa axlu làmb ñoom ñoo ko plébiscité lu yàgg sax ñuy door a def combat bi mais ba léegi combat bi fexe ba am date combat bi mënul fexe ba am face à sa ndax récemment passé lañ ko amaloon fa li nga xamante ni moom moo di Sen TV gis nañ la nga xamante ni moom moo fa xew ba mujj ñu jàkkaarloo ñaari mbëri muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo. waaw Ama Modou moom c'est le c'est c'est xam nga bu njëkk dañoo wax combat du siècle bii moom mën nañu ko tuddee combat du parce que combat gënu ko am tension euh, combat gënu ko ëpp dayo euh, combat la bu nga xamante ni ñaari mbër yu am gannaaw ñoo koy bëre. te ñu am ay fans yu nga xamante ni nii ay supporters yu yu tàng jër la ñu am ay ah, ils sont te barki démb li xew wane naka man j'avais tiré la sonnette d'alarme ci bi um, um, Modou Lo di def euh, di def euh, point de presse am j'avais dit que ni combat bu nga xam ne caaxaan organisé wu ko Modou dafa am gannaaw te du caaxaane bés Ama dafa am gannaaw te du caaxaane bés képp ku ko organiser na nga jël toutes les mesures de sécurité parce que sécurité maximale moo war a am ci combat boobu du début à la fin parce que ñooñu fu ñu tase du sedd malheureusement li xew keroog dañ koy déplorer parce que ça a été un rendez-vous c'est un échec il faut dire les choses telles quelles un échec parce que àdduna yëpp dañ doon xaar ñoom ñaar ñu waxante ay kàddu am na ñuy wax ne sax jaxasoo boobu ak jàppal bàyyil day participer ci promotion combat bi drôle de manière de faire une promotion de combat non non non lii def promotion combat bi mooy Ama wax Modou Modou wax delloo ko ñu xas-xasloo askan bi yóbbu loolu site yi yóbbu loolu journaliste yóbbu yooyu grand place yi di waxtaane loolu malheureusement jàkkaarloo amu fa te jàkkaarloo waru fa woon a mën a am pour la bonne et simple raison que le combat n'est pas nit ñi il ñuy bàyyi xel moo tax lutte ñi ma ko tuddee face à face am na beneen terme bu ñu utiliser muy lancement combat bi kenn mënu ko tuddee face à face parce que amuñu droit def face à face ci jamono ji le combat n'est pas régularisé pour le CNG le combat Ama Baldé euh, euh, Modou Lo amul donte jot nañu ay avance def nañu accord ak Luc Nicolaï on sait que le combat est ficelé en amont officiellement le combat n'est pas encore ficelé. waaw non il faut que Luc dem régulariser combat bi. léegi lu waral loolu ñàkk ah loolu je pense il faut demander au promoteur parce que loolu moom mooy yoon dangay ngay dem CNG. nga régulariser euh, booy def face to face mu am ay avenant yu nga xam ni mooy euh, ànd ak mbër bi wax ko li ko war ci bés bi jox ko heure bi mu war a ñëw ñaata nit la war a àndal et cetera donc loolu amul. donc c'était un lancement du combat mais booy lancer même combat boo koy lancer ci jamono jooju danga war a jël la maximum de mesures de sécurité parce que aussi c'était pas un un un un lancement bu ñu waroon a ubbil au public ça ne devait pas être ouvert au public te loolu mooy erreur bi dans la communication erreur bi nga xam ne Luc Nicolaï Enco def nañu ko moo di dañu waroon wax Ama ak Modou que lii lancement la ànd leen ak ñaar wala ñetti nit public bi bu ñu ñëw. rappelé euh, euh, jàkkaarloo euh, Modou Lo ak ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye bañ doon def fële nga xamante ni moom moo di ca centre aéré BCAO mooy seen première face à face daanaka tension yi tamit nii la fa demee woon. ba Mbour sax. ba Mbour sax loolu amoon na fa. donc événement Luc Nicolaï à chaque fois day am lu mel ni. xëy na njëg laay la ci moom. mais ci bii moom. il faut qu'il soit beaucoup plus Ah. faut qu'il soit beaucoup beaucoup man combat la bu nga xam ne li ma ci yëg bu ko ci yëgee lu mu jël ci sécurité doyul lu mu wut ci ay ñaan pour ñag bés bi doyul parce que dayo combat bi moo toll noonu niveau tension bi nga xam ne mooy accompagner combat bi moo egg foofu ñaari mbër yi seen gannaaw moo yaatu te c'est un derby Modou Lo da koy jaral lu nekk pour couronne bi mu téye ko parce que jëlul Ama pour ñàkk couronne bi Ama tey c'est l'espoir de tout Pikine Ama c'est le lutteur le plus populaire actuellement ni de la banlieue boo ko jëlee jox ko combat bu tol noonu mu waajal ko ay mbokkam xam ni c'est le moment crucial pour mu dégg titre roi des arènes ci ay atam da koy jaral lu ne jaral ay mbokkam lu ne jaral waa Pikine lu ne combat bu tollee dayo boobu il faut il faut une organisation à tous les niveaux il faut une sécurité à tous les niveaux parce que lu ne mën na ci am lu ne mën na ci am ci sans limite laa ko waxe la sécurité doit muy leer mais man ku ma xam-xam ne euh, samay wax moom dama koy jéem a teg ci dëgg ñëpp loolu lañ ma xame te j'ai pas peur de mes de mes de euh, loolu yàlla def na ko ci man aw ma tiitukaay li ma xalaat laay wax parce que li may dundale sama njaboot maa ko ñàq yaakaaruma ko ci poche kenn duma dem kër kenn du ma taxawaalu kër kenn euh, liberté boobu moo ma may tey ma am liberté de ton pour wax dëgg ak ni ma ko sentir ku nekk xam na sama relation ak Luc Nicolaï ku ne xam na li ma daj ci moom bi mu nekkee ci loxo yoon ku ne xam na combat ni ma ko porte pour mu génn ci loxo yoon donc mais c'est un ami mbir mi bu ci waxtaanoon ak man ba ma jox ko sama xalaat xëy na du demee nii c'est vrai woo na ma pour ma ñëw ci face to bi ma ne ko Luc mu ne ah ma ne ko par principe mënu ma ñëw ci face à bi parce que man liggéeyuma seen TV ITV laay liggéeyal soo signé ak ITV dinaa am liberté ak possibilité wu ñëw téyel la sa manifestation ma ne ko Luc mu ne ah ma ne ko Ama Baldé Modou Lo man Malick Thiandou maa ko mën a jaay maa ko mën a defal promotion parce que dama leen a xam bu baax xam fu ma leen di jaar xam nu may def ba ba combat boobu ma jaay ko ci lu leer mais nag à condition que tu signes avec nous mais par principe ak amitié bu ñu munti seq l'amitié reste l'amitié le travail le travail mais bu ma demee foofu di animer sa conférence de presse sama waa groupe dinañ ma xool beneen ba te bëgguma ko ma yàpp donc loolu moo waral ma fa li ma critiquer aussi ni échec la c'est pas pour ça c'est juste que je veux attirer son attention na gën a jël ay matuwaayam ci combat bii parce que combat bii arène nationale sax xaju fa barke rasulilah billaahi xajul billaahi national xaju fa amitié sax lañ doon xalaat te tëj nañ ko dégg naa sax ñuy xalaat ne liggéey ngi xalaat décentraliser ko yóbbu ko Gambie lu ne maa ngi koy dégg Banjul mais du combat bu bu ndaw je pense que c'est un avertissement sans frais li xew keroog mm-hmm. et dina ko permettre mu gën a taxawaat parce que événement musu ko dépassé mm-hmm. jafandu tu ma yebbu di la ñaanal yu yaay naqareeru borom Piki piki no bin yaay Roma tuta kii naa